Ah, Baikat jammi doomi aadama njaay nit ku weerul doo liggéey lu yongura wayloon baykat bi mbalit maa nan len ci xalatel baykat bi mbalit nan len ci xalatel salam salaam man tax ak man asel bi ñu wé rek ñu njabot ki dal moy doole man ah man mën naa bayee ba jël cembe nit defal teero léegi nag mi mm. garant wa euh, boobu ñu amaloon mu gënoon ci fës muy reboisement tey nag ñi ngi fii ci centre de formation bi Euh, di fi amal rek li nga xam ni moom mooy plantation bu leen déggee plantation nag mooy fexe grain yi nga xamante ni partenaires yi joxoon nañ leen ko ah, ñu mën ko amal ci anam yu mucc ayib daal di ko rek euh, def ci seen i euh, place Euh, di ko saytu nag bu mu àgg fi mu war a yegg nag ñu soo koy joxe nag ñu reboiser ko moom ngeen gis noonu waa Gaye Info euh, nekk ci liggéey bi noonu PDG ngi noonu ak daam ànd ak Yokk Fall nga xam ne moom mooy suñu ingénieur tey fii ak euh, Fatim waaye gis ngeen tonton Modou Diop Moussa Ndiaye mi ngi noonu Ousmane Fall modérateur tamit mi ngi fi waaye man mii di filmé xam ngeen ni ñun ñii filmé eh, ñun ñooy waaye da ngeen olarak <laughs>